salut la famille j'espère que vous allez bien danaaw bu ñu leen nuyuwee jox leen seen wàccuwaay tey nag ñoo fi ñëw na la wax ci Oustaz Idrissa Seck danaaw kàddu yi nga xam ne nii yëkkati woon na ko ay at ci ginnaaw ne mille 2022 bu amee 63 ans dina bàyyi politique fan yii ñu gis na ne Idrissa Seck mu ngi waajal campagne bi nga xam ne nii mooy 2024 bëgg a doon candidat ci élection 2024 yii di ñëw mais avant ñoo bi dañuy sant képp ki nga xam ne nii.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 que moi-même je prendrai ma retraite en 2022. Bon, donc euh, on, peut dire qu'aujourd'hui, vous, vous n'êtes pas revenu sur, sur un engagement que vous aviez pris Jamais. Bon, jamais. J'honore tous mes engagements. D'accord. ku ñetti fukki at ak war a retraite fille ci Sénégal 65 ans métier moo man di def dañ ben, la boo amee juróom-benn fukki at ak juróom demal noppalu plus métier mi gëna a diis ci métier yi moy président de la république nan ngay jege juróom ñeen fukki at né da ngay continuer jiite réew mi jaaduwul xel mënu ko xel mënu ko nang déggon ngeen ma ci benn conférence de presse bo xamni euh, euh palais la ko défé salle des banquets fala waxé won ni man d'ailleurs ci sama bop 2022 à 63 ans ci lay génn ci politique gu Sénégal yàlla na yàlla jox Sénégal. yàlla nga ko ndogoo nii palais 2024 incha allah ci barke Cheikhul Khadim topp ñu kenn yow rek la ñu topp yow rek la ñu bëgg. j'honore tous mes engagements. d'accord. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم

elle me dit, mais malade. Je dis, mais comment ça C'est pas possible. Et je vais voir euh, ma mère et je lui dis, cette fille-là, je l'ai draguée, elle a refusé. Samaya ne ma conde de ko ndax yow Je retourne la voir, je lui dis voilà ce que ma mère a dit. Et alors Mais elle a fini par accepter. Donc ma mère avait raison. Et ça, ça s'adresse à toutes les filles. nga bañ Mais mais non non non. J'avais dit ça. J'avais dit ça à Porohan j'avais dit que le jour où je serais assez courageux pour avoir une yarel, ce serait euh, une mamdiara. Euh, puisque et vous savez pourquoi elle a pu faire ça Puisqu'elle connaissait le verset où Dieu dit Khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu Elle a compris quelle était sa mission sur terre. ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahu bi xidmatin mu ne mu te loola am na te jàngaguma xat fakka kabla xat bassa fadla fa dur walla wa nafu jaay tey moo doon mu xaddamu sëriñ euh, Babacar fii léegi ñoom ñaar ñu xuloo sama yaay ne moom sëriñ Cheikh lay tudde sama papa ne ñu ànd seeti sama turandoo Idrissa Gaye Idrissa Gaye ne leen yow Assane Fatou mii moo am dëgg léegi xam nga lu ñuy def mu ne ko ah, mu ko man ak lire bi yeb nañu bolé tudde Serigne Cheikh man na lako defal yaw nak yaay tan maniko ni ko auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tànn naa rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azabannar wa awxa ila abdihi

innahu kaana siddiqan nabiyan wa rafahnaahu makanan aliya nous nourrir contre la faim et nous rassurer contre la crainte ma ne ko mooy sa lettre de mission Moy lettre mission pour chef de famille ñaar la euh lonk ci sa ndodd ñi nga yilif ya len wara dundal ba duñu

sama gars yi vidéo bi ñoo ko seetaanandoo dégg nañ kàddu yi nga xam ne nii kii di sa Seck yëkkati woon na ko ay at ci ginnaaw ne deux lay am 63 ans bu àggee deux mille 2022 dafay jël retraite am bàyyi politique ndax ku nekk xam na Sénégal boo amee 65 ans doon travailleur dangay jël sa retraite kon sa Seck en deux mille 2023 muy ne dafa bëgg a doon candidat ci élection 2024 yi kon dafa doon ay kàddu yi nga xam ne nii sa Seck tàmm nañ ko ci moom bu waxee rek ne waxee li mu lépp li nga xam ne nii wax na ko rek mën na ci génn ndax luy firndeel na ne Idrissa Seck du sàmm ay kàddoom élection 2019 yi bi mu jàllee sa Seck dafa waxoon ne ne du musa a toog dialogue moom Macky Sall ñu gis na ne après quelques mois sa Seck dafa dem fekk ji Macky Sall ànd ak nguuram gi nga xam ne nii moo fi nekk di liggéey ak moom te dafa yëkkati woon na ne du mës toog ak Macky Sall waxantuma ak di liggéey ak moom mu ñu gis na ne ne sa Seck fan yi mu ngi nekk di am ay projet yi nga xam ne nii mooy lan bëgg a doon candidat ci vingt 2024 yi kon tey jii nit ki nga xam ne nii lépp lu mu wax du sàmm ay kàddoom nit ki nga xam ne nii heure bu askan bi amee ci yaakaar ne sa Seck soppeeku na rek mu war askan bi kon tey jii nii est-ce que kooku noonu sénégalais yi war nañ ko wóolu kooku noonu sénégalais yi war nañ jël seen yaakaar di ko def ci moom moom dafa war a xam ne ne sénégalais génn nañ ci moom ndax tey jii nii Idrissa Seck amatul benn crédibilité balaa maa dee rek muy ñëw di génne ay aaya di jaay ay affaire oustaz Sénégal nag jeunesse bi yeewu na Ousmane Sonko yee na jeunesse bi Ousmane Sonko yéen a xale yi nga xam ne nii seen yoon nekkul woon ci politique bëggloo na leen politique bëggloo na leen seen réew def leen ay vrais patriotes ñuy gëstu seen réew nu ñuy yoree seen alal bi di gëstu seen réew nu muy doxee ba gis nañ ko ne ci bindu yi nga xam ne nii mooy ci liste électorale yi jeunesse bi yeewu gi nga xam ne nii ànd nañ ko dem bind ji ci liste électorale yi ndax Pastef muy seul parti bi nga xam ne nii jëlul alalu kenn di ko campagne sénégalais yi ñoo koy financé sénégalais yi ñooy yëkkati seen alal di ko def ci Pastef pour Pastef mën a doon ëllëg parti bi nga xam ne nii mooy nekk ci boppu nguur gi muy président Ousmane Sonko sama gars yi tey vidéo bi loolu la woon di leen jox dig daje ci beneen yoon ci beneen vidéo jërë ngeen jëf.